je m'appelle Hassan Gueye, je le coordonnateur de l'ONG Agricole Afrique. Alors euh, euh aujourd'hui donc euh, nous nous réunissons dans le cadre du programme donc GRC donc euh, qui est un programme sous-régional donc euh, qui intègre euh, les aspects de la nutrition, du genre, donc de l'équité et du commerce, nest pas? Et cet atelier-là donc euh, permet en quelque sorte de, de travailler dans quatre régions, nest pas, donc en Afrique, donc euh, au Burkina, au Sénégal euh, au Mali et au Ghana. Donc pour voir comment échanger sur les pratiques donc en matière d'intégration donc de l'agroécologie et plus six éléments. qu'on appelle AE plus 6. Et cet atelier donc rentre dans la sensibilisation et l'intégration de cette n'est-ce pas, sur les différents programmes que Agricole est en train de mener en, ce moment. la dimension la, de Alors, vous savez, la nutrition donc revêt euh, une place importante donc euh, dans le dispositif familial, dans le dispositif donc euh, donc euh, sociale dans le dispositif même donc étatique. Vous savez, donc, euh, quand on parle de sécurité alimentaire, on pourrait l'assimiler rapidement à tout ce qui est nutrition. Si une personne donc, est bien nutrie, est bien nourrie, donc, euh, elle est bien portante. Et quand cette personne-là est bien portante, donc sa sécurité alimentaire est en partie assurée. Donc c'est pourquoi nous lui donnons la place donc, euh, la plus élevée donc parmi toutes les composantes qui se trouvent au niveau même de ce programme-là. Euh, mhm. euh, la malnutrition? Alors l'approche que nous utilisons dans ce programme-là, c'est d'abord par euh, l'étude contextuelle. Donc euh, nous ne travaillons pas dans ce programme juste pour venir travailler. Donc nous faisons d'abord une étude du pour voir le contexte dans lequel le milieu donc, euh, est. Si, par exemple, la zone donc, euh, d'intervention du projet est, est catégorisée rouge, jaune ou vert. C'est pourquoi nous sommes dans la région de Kafrine ou cette zone-là est au niveau donc, de la couleur rouge qui est alarmante. Alors c'est en ce sens-là que nous avons réuni à Kafrine donc, euh, tous les acteurs qui évoluent donc, euh, dans, ce, dans secteur, donc par un atelier, n'est-ce pas, un premier atelier donc de sensibilisation donc sur l'approche. Ensuite, nous avons donc euh, énuméré avec eux un certain nombre d'activités qui permettent, n'est-ce pas, de prendre en compte la nutrition. L'agriculture et nutrition, le genre et nutrition, n'est-ce pas les services étatiques et nutrition. Donc c'est cette approche-là qui nous permet par exemple de voir sur l'agriculture. Quand on fait par exemple l'agriculture, au lieu de venir par exemple faire des spéculations, donc n'importe quelle spéculation, on se base sur l'étude de référence que les familles ont donnée pour dire que généralement toutes les familles de Kafrine ont souligné que un enfant bien nutri mange bien, par exemple, du mil. Et là, on prend, par exemple, le mil comme aliment de base, qui sera donc l'aliment de production. C'est ça qu'on appelle l'intégration de l'agriculture et de la nutrition. Exactement. Donc, il y a une relation entre la lutte et les pratiques agri euh, agricoles réelles. Donc, euh, ce qui fait que nous travaillons donc pour que ces pratiques intègrent cette notion de lutte. Vous comprenez Donc euh, c'est ça que nous, nous, nous, essayons de faire. En amont, si vous vous rappelez bien dans le, dans le passé, avec nos aïeuls, donc euh, ce problème de nutrition se posait pas parce que donc, euh, la base alimentaire était basée sur la valeur nutritive que l'aliment pouvait donner donc, à, aux membres de la famille. Que que la, les, les, problèmes Non, c'est pas clinique. Donc, euh, il euh, y a une partie clinique. Mais la partie clinique donc, euh, arrive au moment où l'enfant ou la personne est dans la zone extrêmement rouge. Mais avant cela, nous, nous, prenons toute cette partie prévention. donc et comme je vais le répéter en wolof fagaru moo gën faju donc euh, mais l'essence même de la nutrition ou bien la réussite même donc euh, d'une bonne nutrition prend départ au niveau de la prévention et non au niveau de la de la, de, de l'aspect clinique ou bien donc euh, sur les impacts négatifs sur les principes de développement Mais, mais, mais, mais écoute, vous savez, nous, par exemple, l'étude de, de, de, contexte qu'on a eu à, à, faire a montré que, par exemple, si une localité, d'abord, a un taux de vulnérabilité sur la nutrition, ça réduit d'abord les potentialités physiques de la personne, ça réduit les potentialités mentales de la personne. La personne ne réfléchit pas bien, Et puis c'est démontrer que les enfants malnutris à l'école sont moins performants. Et ça, par exemple, euh, une, une population, donc euh, un, État, une nation où, par exemple, euh, la population donc, est très mal entretenue, reste une population donc, euh, derrière, ça c'est sûr. Et projet euh, Alors, le coût global du projet pour les quatre euh, pays, donc s'élève à 1 million d'euros, 1 million de dollars, n'est-ce pas, canadiens, euh, euh, américains. Mais nous avons donc euh, notre part qui s'élève à plus de deux 200 000 dollars, donc n'est-ce pas, dans la zone de Kafrine, avec dans quatre communes, communes rurales donc euh, de Kafrine. Mm -hmm. Alors, cette rencontre d'aujourd'hui regroupe donc euh, toutes les équipes d'Agricole et également donc des partenaires donc directs d'Agricole. Donc je peux citer ASDES, spsp donc la cellule de lutte contre la malnutrition. Je peux citer également euh, euh, euh, qui encore euh, et d'autres projets exactement. waaw man maay tudd Assane Gueye man maay coordonnateur ONG Agricole Afrique tey jii dañoo ñëw ab am ab lël fii boo xamante ni nii dañuy waxtaan di yeete ak di fexe nu ñuy dugalee li ñuy wax nutrition nutrition moom mooy lekk goo xamante ni nii gu gu baax la ci ci nit ki moom la ñuy fexe nu ñu ciy waxtaanee donc fii ak tey suba ak ginnaaw suba bu neexee yàlla. waaw projet bi nga xamante ne ni moom moo ko indi ñun Agrécole la ñu nekk ci benn projet bu tudd GRC Global Partnership Resilience maanaam ay kuréel la yoo xamante ni ñuy nekk diggante Mali Sénégal Burkina ak gana ñu lëkkaloo ceek ay américains yu tudd Grand Soil International ñuy nekk. di fexe nu ñuy indee ay ay pexe pour xeex lépp li nga xamante ni mooy jafe-jafe bu nit mën a am bu nekkee ci mbir moo xamante ni daf ko daaneel ba pare cest nit ki bu daanoo ba pare ban pexe lay defaat pour jógaat résilience maanaam daanu na ba pare maanaam tey nit ki Eh, mbënn mi ñëw na yóbbu na lépp li nga xamante ni moom mooy sàqam kooku yan pexe lay teg pour jogaat donc programme bi ci loolu la mais nag ñun ñu tuddee ko AE plus 6 agroécologie plus 6 6 yooyu bokk na ci maanaam li ñuy wax genre bokk na ci maanaam nutrition bokk na ci équité bokk na ci donc. Euh, Euh, maraîchage bokk na ci aviculture yooyu yëpp moom mooy yi nga xamante ni moom mooy dooleel programme boobu noonu pour nit ki nga xam bu daanoo dina fexe ni muy mën a jógaatee. Mhm. exactement ñun tey jii li ñu bëggoon tey jii mooy dañu bëgg nii nit ki bu fekkee nii dañuy kay jàppale ba nga xamante ni ni ëllëg dina mën a jox njabootam lekk gu baax gu am qualité dañuy fexe. ci bi muy def ba mbay mi mu boole leen mu lëkkale leen ñoom ñaar mais nga xamante ni ni du nekk nii day bay ba pare di doog a fexe nu mu koy xeexee ni nga koy jiital foofu lay nekk foofu la lëkkaloo bi di amee amee solo. Mhm. ñàkk lekk gu baax moom. li muy njëkk mooy yow sa bopp da ngay faible maanaam amoo doo am doole doo am doole doo am kattan doo waree dox sax dox lu bu yàgg da ngay sonn da ngay vulnérable feebar la lay yomb dugg. rax ci dolli da ngay nekk nit koo xamante ni ni tamit da ngay doo xalaat xalaat bu mucc ayib maanaam say xalaat day limité wu te boo boo leen fàttalikoo sax xale yi nga xamante ni dañu am malnutrition nekk ci école yi ñoom ñooy xale yi nga xamante ni nii ñoom it seen i seen i résultat nekkul du nekk résultat yu baax a baax a baax a baax a baax <laughs>